ak nag ñu ngi fi fi nga xam ne rek euh, mooy caaro euh, yi euh, nag seet si soxna suñuy wooyee Fatou Condé doon soxna soo xam ne dafa am li nga xam ne rek mooy doom bu feebar muy feebar bu yàgg xale bi mi ngi tudd Cheikh Tidiane Bathily Bathily Cheikh bàcc li nag ma nga juddu woon ci atum 2010 Euh, jamono ji may wax ak yéen ci at yi mi ngi am fukki at ak ñett waaye nag doon ki nga xam ne xale la boo xam ne bu mu juddoo ba tey bi mu amee un an et demi un mhm. euh, ci la ko feebar daaneel feebar bi ñu ne méningite la mhm. euh, ci li ñu wax méningite boobu daal di rek déformé xale bi daal di rek déformé cër yi xale bi nag jotu la sax mën a wax ndax bu ma commencé jàng dox rek euh, nekkoon xale bu rafet macha allah gis ngeen photo yi ci la ko affaire bi daal di daaneel euh, ba ni mu amee nii nii fukki at ak ñett boo leen ko gisee nii 13 ans la am waaye màggul maanaam waxul te yenn mouvement yu bëri munu ko te cër yi gis ngeen li mu bindoo muy lu doy waar lu metti faatu euh, Kande na Konde mm. doon soxna soo xam ne boobaak léegi mu ngi jàpp di toppatoo doomam wéetu ci ndax ay dëkkandoom ñi koy jàppale ay mbokkam ñu ngi ciy jàpp waaye nag moyen bi faj bi laaj yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dañ koo mënul tax nag ñu ñëw ci li nga xam ne rek mooy 7 voix du cœur sur la 7 TV diis leen ko di ci xaar li nga xam ne rek mooy solution nuyu nañ la bu baax a baax euh, soxna si. maa leen di fay. tur bi Fatou Konde. Fatou Konde laa tudd mm-hmm. dëkk Caaroy. Mm-hmm. yaayu Cheikh Tidiane Bathily. waaw mm-hmm. ah. ma yore ko nag depuis bu mu amee. atam ak juróom-ñaari weer ba tey maa ngi ak moom mu feebar feebar bi nag crise la ko dikkee woon ma dem ak moom fan ba laataa ñuy dem ci feebar bi ba mu juddoo yaay boy hmm. euh, naka la demee ba mu juddoo ba ni mu amee un an sept mois mosul am yenn genre feebar yu ndaw ndaw yooyu yi siñ yi siñ yi xanaa da doon jooy rek ba mu juddoo ba mu indi ko ci kër gi dafa jékki-jékki ba mu amee un mois c'est la commencé di jooy di jooy di jooy di jooy di jooy léegi may dem ak moom hôpital fu nekk ma yóbbu ko mhm. di ko xool nekk ma def ko léegi benn bés mu jékkee-jékkee rek crise boobu am na un boobu am na un ak set mois mhm. léegi bu mu crisee daw moom fànn mu demee fànn ñu tey ñu fa am nañ fa mais lépp normal woon kon si photo yi ni nga wanee waaw lépp mhm. dara jotu ko woon parce que doon na raam bay commencé pour dox waaye si la ko feebar bi dugg daal mu mel ni mm-hmm. waaw. feebar bi muy door naka la demee woon. bi muy door crise la ko dikkee ko dikkee crise da commencé di crise ba mu crisee yóbbu ko fan nag mu ko yóbbu si la ñu entré foofu am naa fa neuf mois yàgg naa woon fan pavillon o mm-hmm. fa laa nekkoon ak moom yàgg naa fa waaw di ma génne ñu ne ndox moo nekk si boppam léegi ñu opéré ko ma delluwaat opéré ko mu fay si lu seer mbokk yi jàppale ma mu fay si lu seer ñu génn ñu génnee nag ba léegi arrêté wu ma maa ngi dem. Euh, ñu dem étape par étape bi ñu nee ndox moo nekk ci bopp bi. bi ñu nee ndox ñu defal ko opération. après nan la demee opération. Hmm. ñu defee opération. dafa dañoo jaaree raakol ci kiyam si dënnam. Hmm. léegi boobu ba léegi nag. dama daan dem di def rajo di def scanner def yëpp waaye jamono yii daal. pour ñuy xool raakool. waaw pour ñuy bi mi ngi ci moom ba tey. mi ngi ci moom ba tey. Hmm. waaye léegi nag jamono yii la bindal rajo pour ma def ko pour ñu xool raakool bi fan la nekk parce que raakool bi moo tax muy jooy parce que raakool bi lam dem naa fi mu ko def pour ñu xool ko bi ñu demee ñu xool ko ñu ne ma lañ ma laaj. waaye comme damaa faj faj faj faj doole amul. Mm-hmm. awma doole. loolu moo tax biñ ma waxee scanner bi ak tey yànk na ndax dëgg yàlla. Mm-hmm. waaw yàgg na uh, ana ana waajuram bu góor. waajuram bu dafa wàññeeku. kañ la wàññeeku fekk na moom mu fekk na mi ngi feebar. Mm-hmm. waaw ba avant muy gaañu doon na doon na si bos lu àqam di si jàppale. waaye comme dafa wàññeeku. moo tax amatuma doole. Mm-hmm. waaw. Euh, biñ koy opéré euh, fekk na ko fi. waaw fekk na ko fi. naka la demee woon. waaw dañu première opération bi en tant que yaay ñu ne la dañuy sa doom boobu cër yi melagul nii. déedéet melagul nii. ñu ne la dañuy def raakool ci bopp bi mu jaar ci biir bi. naka la demee woon noonu expliquer ñu détail par détail. ah loolu laay mën a nangu rek soña loolu laay mën a nangu. Mm-hmm. parce que bëgg naa sama doom te tamit luñ ma wax ne loolu moo koy wëral rek yaay bu nekk xam nga mu ne la sa doom lii moo koy def moo boo ko defee dina dina baax noonu rek ngay mën a def sooña doo gis leneen lu dul loolu rek ngay gis papam naka la ko dundee woon jamono comme ni ma ko dundee rek la ko dundee waaw comme ni ma ko dundee rek la ko dundee euh, léegi ma demee hôpital ñu ne dañ koy opeere waa après nanguwuma woon. après ba mu yàgg ma demee waxtaan ak docteur mu ne ma loolu ndox moo nekk ci boppam il faut ñu dindi ko ma d'accord ak moom. waa jox ñu dat ñu dem bi demee ñu opeere ko ñu génn ñëw si saal ma laajte ñu ne ma opéré bi réussir na. ma sant suñu boroom bu baax di ko gën a sant ñu nekk fa cinq jours après ñu génn ñu ñu génnee ñëw si kër gi. damay dem rendez-vous di ñëw di dem di ñëw di dem di ñëw waaw parce que li seen feebar bi xaalis la laaj. ci boobu lañ la waxee ne méningite. waaw ñu méningite la ñu paralysé cérébral. Hmm. waaw paralysé cérébral hmm. nekk di dem di ñëw dem rendez-vous doo demee ay scanner lañ lay laaj ay rajo ay analyse nga ñëw lijjanti demaat dem defi te aw doole. dama doon dem di liggéey mais boobu ba tey cër yi melul ni déedéet mel woon. Euh, kañ la commencé cër yi di déformé. comme bi ma bi mu ko commencé di dugg muy crise parce crise bi moo ko gën a sonal. Mm-hmm. crise bi moo ko gën a sonal waaw moo ko gën a sonal moo tax cër yi dem ba commencé di def nii. mais bi muy commencé yaa ngi koy remarqué. waaw yi mu commencé déformé. waaw maa ngi euh, ndax jéemoon nga ko yóbbu hôpital ñu xool ndax. Euh, ni ñu monté appareil bi baax na wala baaxul ak dem na ñu mhm. xool ko. Mhm. léegi ba ma demee xool nañ ko après ñu bindal ñu ay garab ñu ñëw léegi ba ma delluwaatee rendez-vous weer bële paase si la ñu bindal scanner nag ñu ne mën naa def scanner pour ñu xoolaat waaw scanner boobu. Mhm. awuma ko nag parce que damay dem hôpital su may dem il faut nga fay 5000. soo demee da nga jënd ticket 5000. sooy ñëw tamit da ngay fay 5000 nga ñëw. te xëyuma gontuwuma bëgg naa nag lii nii pour ma defoon ko yàggoon na. waaye nangu mu woon. parce que dama doon dem di ñafe di liggéey pour mën a dimbali sama doom duma doon liggéey. la doon liggéey. laa doon xëy. ma doon dem di xëy foofu pour daan sama doole pour ñëw def def sama doom awma ko parce que awma léegi nag ba léegi maa ngi daw musuma kaa daw duma ko daw parce que doom ju ma gën a bëgg la sama xol am nga yeneen doom yeneen doom moom laa mujjee am waaw ma bëgg nag ku ma jàppale trop bëgg naa ko ma dimbali bëgg naa ko ma dimbali ma def sama scanner bëgg naa ko ma dimbali pour ñu xool pare ba ñu dugal bu dee dafa dañ koy changé ñu changé. Mm-hmm. dafa yàgg. yàgg na. Mm-hmm. sonn naa torop bëgg naa nag ku ma dimbali tàllal naa sama loxo ñëpp. Mm-hmm. tàllal naa sama loxo euh, nguur.